mardi 5 janvier 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk ñetti doomi Pikine la ci xëy fësal muy ancien bi ki xam ne ni moom mooy seen mag di Eumeu Sène ak ay rakkam xëyee tey daal dafa leen topp ci ab gëstu ci nga xam ne nii génn nañ ko wala boog at nga xam ne daal ñoom génn nañ ko la nga xam ne nii moom lañ ca def mel ni ki nag boo leen xoolee daal nan ca taxawe am na ak wuute yëglikaay ba di sunu lamb moo xëy tey wax ñu ko ca VIP ya nga xam ne ñoo dëkk fa nga xam ne moo di Pikine bu dee Ama Baldé moom yëg likaay bi ne boo bëggee dégg dëgg génn yi mu ci jot a def benn génn la maanaam jot caa am benn ndam ci at yi nga xam ne nii moom la ñu mujjee yëg likaay ba moo xëy wax nu ko waaye yëg likaay bi ne fi mu nekk nii moom Ama moom jege na lool lool wala ay baaramam daal jege nañu lool ngir nekk wala boog ngir jël couronne roi des arènes ba ndax ku ne xam ne ni moom moo war a bëre ak Modou Lo Eumeu Sène xam ne nii wala ñaari génn yam ca jot a def moom benn ndam la ca jot a am ak benn defet ñu nangu couronne ba ci moom maanaam détrôné ko ka ko def nag du kenn ku dul ka nekk tey roi des arènes di Modou Lo ma dëkk ca Parcelles Assainies keneen ka ca des tamit di Boy Niang moom tamit ñaari génn yam jot a def daal yëg bi jàpp na ne daal benn ndam la ca am ak benn defet maanaam daal dafa kale yëg likaay moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey ci ñetti mbër yoo xam ne ni daal ñu nga fa nga xam ne nii moom moo di ca Parcelles Assainies keneen koo xam ne wala boog ca Pikine keneen koo xam ne nii moom wala ñaar ñoo xam ne nii war nañoo bëri muy Eumeu Sène mañ waxoon léegi dëkk ca Pikine ak ka nga xam ne moo di lag de Guiers numéro 2 moom war a jàkkaar dëkk fa nga xam ne moo di ca Guédiawaye xëy na tey di leen jàngat ñoom ñaari mbër mooy njuga Dia a nga xam ne nii maanaam kilifa la wala boog moom mooy directeur technique u écrit ba nga xam ne moom moo di Rock Énergie wala boog mu bokk ci encadrement technique ba Ndiouga Dia nag moom ne ci ñaari mbir yi ci wàllum xeex daal jàpp na ne ci côté xeex moom Lac de ah mën a dégg daal wàllum dafa mel ni daal xaw na ci am la nga xam ne moo def xam-xam maanaam expérience waaye kam ko jëkkal tamit muy Eumeu Sène demul mu des ndax jàpp na ne kii di Eumeu moom bagarre de rii yëglikaay bi wala boog moom Ndiouga Dia mu ngay wax ne daal xeexu mbedd moom Eumeu lu mu man la te itam ragalu ko mu mel ni kon booba diggante moom foo mën a jaar ab xeex dana ca am yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu ka nga xam ne nii tamit moom moo di Babacar Diop daal ca wàllum CRC ba ca Thiès daal ngir jël place u Maysa Ndiaye moom daa mel ni fi mu nekk nii day moom Babacar daal ay daa mel ni moo gën a tegu ci aw yoon ngir jël place ba yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii daal ñoom ñooy promoteurs yi boo bëggee dégg-dégg yëglikaay ba xëy na xamal ñu ne daal lu jëm ci wàllum protocole sanitaire ba nga xam ne moo war a tax lamb ji ubbeeg la leen lañ leen laajoon ci ay dossier ngir ñu war koo jibal état ba ngir xool la ñu financé daa mel ni ki nag yëg likaay ba xam ne ñun daal ginnaaw bu ko promoteur joxee ña nga xam ne ñoo di CNC ba waa CNC ba moom maanaam ci mardi ji daal ci la ñu fas yéene nag jébbal ka nga xam ne moor sport réew mi dossier ba di le ministre des sports monsieur Matar Ba yëg likaay bi di sunu lamb ba tey moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ka nga xam ne nii nag moom moo jiite ba amateur yi du jànjee ko daal mu ngay xëy di wax ci yëglikaay bi di sunu làmb daal la mu bëgg ca la nga xam ne nii daal moo ay changement yi nga xam ne moom la bëgg loolu lépp waxtaan la woo xam ne mu ngi ko seq ka nga xam ne moo di ci biir yëglikaay bi di sunu làmb beneen xale boo xam ne ca Pikine la dëkk ñu naan ko Petit Baboy yëglikaay bi ñëw na ci moom mel ni ki nag moom daal maanaam aw turandoom niru na ko ci côté boo jël daal mel ni ki xale boobu di Petit Baboy daal phénomène la ko yëglikaay bi tudde te itam boo xoolee daal yëglikaay bi jàpp na ne daal dara dara daloo xam ne daal bàyyil na ko baabooy moom ci wàllum lamb dafa mel ni loolu amul leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na ñëw ci muy combat boo xam ne daal mu nga ca tuus yi sunu lamba nga nuy xam ne daal diggante Tafa Gueye numéro 2 ak Tidiane fay ba nga xam ne mooy Tidiane fay de nekk tëngeej daal combat ba taxaw na te ka ko taxawal moo di lay njaay yëglikaay ba mu xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca record record nag moom kan fay fekk wala ñan fay fekk moo di waaru énergie ak bilan boo xam ne daal Abou Ndour xëy na daf ko ci ñoom xam ne moo mujje 53 victoire daal dajale ko ci ak 43 défaite bi nee na daal loolu jot nañ ko dajale ci 5 ans yi nga xam ne nii moom moo mujj ka nga xam ne nii nag moo di tête de file ba moom muy Modou Lo moom soo bëggee dégg dëgg daal daa mel ni ab taxawaaya moom loo ci mën a dégg leer na ca fa nga xam ne moo di rek énergie donte amoon na fa défaite bu rëy digganteem ak Balla waaye jóge na fa am ndam lu rëy diggante mag Eumeu Sène nekk roi des arènes moo tax yëg likaay bi daal calcul la ñu am ci ay réussite wala boog ci pourcentage soo bëggee dégg dëgg su record ak ñu xam ne daal cinquante cinq pour cent de réussite daal loolu la nga xam ne nii daal moom na Rock Énergie def mel ni ki nag ka nga xam ne moo di muudu moom couronne roi des arènes ba moo ko jël yóbbu ko fa nga xam ne moo di ca Rock Énergie mu mel ne ki nag yëg likaay bi ba tey ñëw na ci la nga xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii itam soriwuñu mut lool lool mu Yékini Senior ak Malick Niang record tey xëy na gëstul ñu seenom nekk ci écurie Ndakaaru ak bañ fa jógee toxu mu bëgg a toll ci toll ci juróom ñaareet at yëglikaay bi jàpp ne ne daal li am ba des daal mooy daa mel ni day fa ca écurie ba Kati Jóob nekk ak Yékini nekkoon fa ak ñu mel ni ki noom daa mel ni Yékini Senior ak Malick Niang foofa moo a dox ci ñoom fuuf ni écurie ba nga xam ne dem nañ ca moo xam Yékini Senior ma ca Dóor waar wala Malick Niang ndax ku ci bu dee Malick Niang la ba mu demee Yoff ba tey dafa mel ni daal génn ba mu jot a génn da koo ñàkk mu di ab combat doxoon ci diggante ak Ama Baldé mu mel ni ki nga xam ne nii tamit moom moo di Yékini Junior soo bëggee dégg dëgg moom ñaari génn la jot a def maanaam génnam bu njëkk digganteem ak Modou Anta la woon mu daan ko ba mu ca jógee génnaat atum 2018 digganteem ak Tafatine dafa ñàkk moo na daal soo bëggee dégg dëgg moom daa mel ni fa nu jóge mu Yékini Ndakaaru moo leen gënoon a jik di ne moo di Malick Niang la onze combats yam jot a def am daan moo di Ama Baldé bu dee Yékini Junior moom boo bëggee dégg dëgg am na lu toll ci vingt 41 combats am na 15 victoires ak 6 défaites Lac de Guiers numéro 2 ko daan Issa Pouye Tafatine Elton Tonnerre ba tey ak Tafatine muy ñaari yoon mu mel ni ki daal yëglikaay ba tey toppal nañu ñaari mbër yooyu nga xam ne ni écurie Ndakaaru lañ nekkoon te jóge fa xulli asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di bëggee waat di leen ziarat di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen saa a li ñuy def intéressé la ñu ngi lay ñaanal jàmm ko sàkku ci yow même sax ñëpp la ñuy wax rek parce que euh, yaakaar naa ne ñaa jàmm moom boo koy ñaan da nga ko ñaanal bépp doomu aadama kon fu waaye mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi lay ñaanal jàmm mucc ànd ak wér sax dàkk lool ak xëy xéewal yàlla mën na ko yàlla na ko def tey nag ñu ngi talaata maanaam tubaab ba ne mardi di tombeek 5 janvier 2021 juróomi fan ah ci at mu bees mi nga xam ne dugg nañ ci te comme lañ ci doon ñaan rek lañ ci ñaan yàlla na yàlla def mu nekk at moo xam ne dina neex lool ci ñun ci lépp lu mu mën a doon ñu ngi koy ñaanal yëglikaay bi nag tey fi mu xëy ñëw xulle fenn la maanaam diggante tafaate diggante Eumeu Pikine la dugg ñëw ci Eumeu Sène Ama ak ki nga xam ne ni moo di Boy Niang ci at yi nga xam ne moom lañ génn seen ab taxawaay daal ci làmb ji maanaam daal doomi Pikine yooyu seen mag Eumeu seen Ama ak Boy Niang mel ni ki nag soo bëggee dégg-dëgg yëg likaay bi ni mu ko jàngate daal bu dee Ama la moom dafa mel ni ci at yooyu yu nga xam ne moom lañ génn bu dee ñaar wala ñetti at dafa mel ni moom lam ca jot a wane mooy la ca jot a am gañe ko muy mel ni kon xaw na gëj a bu dee Eumeu Sène la moom tamit boo xoolee jot na ci am lu toll ci ñaari combat ndax ku ne xam ne ni bëri na nekk roi des arènes jógee fa bëriwaat ak Modou Lo ñàkk couronne ba Boy Niang jot na ci bëri ñaari combat boo xoolee daan na fi Sa Thiès combat bu réyoon ca fa nga xam ne mu doon Léopold Senghor mu dellusiwaat am jafe-jafe ci diggante ma ka nga xam ne moom moo di Lac de Guiers ci arène nationale ñàkk combat mel ni kon seen taxawaay ah, yi ñu génne xaw na am différence boo xoolee ci nombre de combat ñoom ñaar ñoo këppale ama waaye ci victoire ramé ñoo ko tolloo ndax ku ci ne ci ñoom ñaar ñu ma di Boy Niang sa combat yu mujj da ko ñàkk wala boog waaw noonu la demee mel ni kon daal ah loo ci mën a dégg itam li jara wax mooy Eumeu seen moom mérite la am tey parce que yaakaar naa bi muy dugg làmb Ama ak booy Niang mi xalaatu woon bëri te tey fexe na ba ah sàmm carrière am ba ndeysaan ñoom ñu di ay xale di ay rakkam fekk ko ci biir arène bi waaw ndax defe naa ne Eumeu Sène ku ne xam na ne ci année 97 yi jàpp at yooyu ci la commencé di bëre jëm si nii tey mu nekk presque vingt et un vingt et carrière muy mbër moo xam ne comme comme li ñu doon wax si Bombardier rek am na ko kon defe naa ay rakkam itam danañ topp yoon woowu te defe naa ñu ngi ci yoon woowu ndax Ama ak Boy Niang yàgguñu ci làmb ji waaye wax dëgg yàlla tey buñ demee bay bëri niveau bi ñuy bëri ça veut dire kon liggéey am na fa mel ni kon Pikine moom lañ doon wax rek si yeesu maanaam feefu làmb la daal loolu moom defe naa mooy li nekk ba tey Eumeu seen moom buñ continuer diggante mag lak njuga jam yi directeur technique wala boog ma bokk ci encadrement technique organise xëy na di ci wax di ci joxe xalaatam ci ñoom ñaar ci côté xeex jàpp na ne ëmma bagaar de rii lu mu mën la te lu mu ñeme la lagi itam jàpp na ne ci côté xam-xamu bagaar xeex dafa mel ni ah am na ci expérience waaw loolu moom defe naa dan de moo tax ñu koy woy le penseur du Waalo ndax mën a xeexam macha allah parce que Lac de Guiers damay wax ni mbër la moo xam ne xulle lu jara bàyyi xel mbër mu jafee ndaan la boo xoolee benn defe bi mu am ci carrière am Eumeu Sène moo ko ko teg waaw kenn keneen kon mu nekk mbër moo xam ne lu ku jafe jafe jafe daan la mbër la boo xam ne tamit

amoon ci loo xam wala boog la fa may sa def ki koy jël yàlla na def lu faraw lu ko raw maa ngi jégalu ba tey bu ñu continuer protocole sanitaire ba mu mel ni ah daa mel ni kon promoteur yi ndax joxe wuñu seen i dossier ba pare ba dossier defe naa tey dinañ ko jébal ministre des kon xam naa mu muy demee waaye loo ci mën mu nekk nii gars yi moom na ne moo di làmb ja ak bëree ba du changement yi mu bëgg lay wax pour làmb ah yooyu moom xam naa du doon yenn yu dul yu baax ndax ku ne xam na ne moom it yàgg na ci làmb di ko taxaw ci côté bu ne jiite les kon moom ñu koy nuyu di ko ziar suñu président boobu monsieur waaw Doudou maa ngi lay

ci ab gëstoom mel ni ki nag cinquante cinq pour cent de réussite la ko la ko la ko tënkee bu dee ci côté taxawaayu Modou la moom ah loo ci mën a dégg ku ne xam na ne kon rafle na la nga xam ne moom mooy couronne du roi bi yóbbu ko parcelle muy loo xam ne itam defe naa ne loolu tamit mérite la ndax Rock Énergie yàggul ci écrit yi ñu sanc la ci année 2000 yi après waaw ci at yooyu lañ ko sam boo xoolee kon defe naa tey bu ñu demee ba formé ay mbër ba mbër yooyu tey ñu xam ba Rock defe naa juddu parcelle ci bëri ci moom lañ jaaree juddu ak am na ci écrit du mën a yëpp mais am na ci yoo xam ne ci lañ jaare juddu kon defe naa loolu tamit euh, lu lu jara wax la écrit la boo xam ne kon wax dëgg yàlla bay na waaram ci làmb ba tey ñu amee couronne roi des arènes bi di ci félicité Modou Lo mi mu am combat ak Ama Baldé combat boo xam ne ñëpp a xaar loolu moo lay wane ne kon liggéey rek mu am solo daal waaw di ñaan yàlla combat bu ñu yegg sa ak jàmm rek que le meilleur gagne Yékini suñoo rek Malick Niang seen génn écurie Dakar daa mel ni daal écurie Dakar moo gënoon a baax si ñoom boo xoolee bañ fa génne ak léegi Bari ñàkk combat bu 2018 Malick Niang benn fa def yaakaar naa ne mooy défaite bi nga xam ne amoon na ko si Ama Baldé ñàkk combat ba ak écurie Yoff defe naa boo xoolee kon daa mel ni ñu nekkee écurie Dakar ndax ku ci ne ndax Malick Niang bu amee 11 combats ba am ci 10 victoire benn défaite 10 victoire yëpp biir écurie Dakar la ko bëree Yékini Junior itam boo xoolee 21 combats yi mu jot am am ci 15 victoire ak 6 mu mel ni boo ci génnee deux combats kon 19 combats moo ciy def kon 19 combats yëpp écurie Dakar la ko bëree kon dafa mel ni écurie Dakar wax dëgg yàlla boo ko xoolee sportivement mu gënoon a baax si ñoom mais nag des fois mbër wi wala sportif moom mooy xam lan moo koy lan mooy nekk si ginnaaw wala lu koy tax a quitté fen feneen ah loolu lépp euh, kii la rek tamit et puis tamit bi ñuy dem xëy na ne d'ici quelque temps ñoom ñëpp dina ñamaat ay combat parce bokk muy ñaari mbër yoo xam ne ñu jara bàyyi xel mu Yékini Senior ak Malick parce que ay champion te wane nañ ko vraiment waaw xulle euh, di la nuyu di la ñaanal jàmm ah, di ñaanal tamit Elas mi nga xam ne moo ne ci monteur bi Elas Diouf jàmm di ko ñaanal képp ku nga xam ne yaa ngi ñu siifut Cheikh Bass du ma ko fàtte di nuyu ñëpp ñëpp daal di nuyu ñëpp fépp fu waay nekk di ñu béggee daal mais di nuyu tamit sama waa commune waa commune Ndondol maa ngi leen di béggee bu baax a baax rawatina suma mag suma maire di suma avocat di maître Pape Sène kooku suma xarit la yàllaa ñu boole muy le maire de la commune de Ndondol ah, li ko waa Ndondol tegee foofu na ko réussir waaw olof nag nee na daanu dajul suuf mais am nañ ci yàqin mais du nuyu tamit classe politique bi nekk ci commune Ndondol bi yëpp ñoom euh, ki nga xam ne moom mooy Edouard seen ñoom Déthié ñoom ñëpp maa leen di bëgg ah su ma dinaa juum képp ku fa ne rek di yëngutu ngir luy doxal commune ba Babacar bëgg di ñaanal jàmm waaw di wax ne ah, olof a ko wax ñu bokk bokkuteen ñooy laxasoo ba ñu ñëpp ñoo bokk commune bi di nuyu gaa yi nekk foofu yëpp yëpp yëpp même ancien euh, PCR ba di Abdou seen tamit di suma goro maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax di ñaan daal jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre xulle di la ñaanal jàmm